peut-être ñu ñàkk bañ a wax quoi parce que coalition la et que euh, benn cadre rek mooy cadre bi yëpp et que si lépp lu ñuy def rek par consensus dañ koy defee quoi. alors xëy na peut-être ay quelques points yu ñuy souligner rek pour gars yi comprendre que man dafa am yoo xam ne vraiment ça ci tient à cœur pour moo ko sénégalais ñu comprendre ko que ñun en réalité nous ne sommes pas des ennemis de l'État du Sénégal au fait il faut nit yi xam loolu ñun du ñu noonu kenn ñun du noonu Macky Sall bi fi nekkoon. te jóge fi ñun duñu noonu jomaay bi fi nekk nii cest à loolu il faut nit yi comprendre ko cest à ñun suñu devoir lañ nekk ñun suñu rôle lañ nekk ñun nous sommes ñun ay sentinelles la ñun nous sommes le peuple on a fait le choix d'être ci côté peuple sénégalais bi te loolu il faut mu leer sénégalais nag moom yàlla loo am lu mu ko nattoo mooy sénégalais xam lan la xam mooy politique gu Afrique sax la en général mooy kaa ñu ànd xeex après ñu bàccoo il faut mu am au moins des sénégalais yoo xam ne ñoom dinañ ibbi boppu sénégalais yi ñu conscient ci en réalité du parce que da nga xeex rek da nga war a am post du parce que da nga xeex rek da nga war a partagé da affaire bi du gàttal bu ñuy partager il faut mu am ay sénégalais yoo xam ne dañuy taxaw équidistant ñu opposition ànduñu pouvoir ànd ak peuple bi pare nekk sentinelle am leen à l'œil nii di xool pouvoir bi nga xam ni gunge nañ leen bañ jot pouvoir bi ñu ñu topp leen li tax ñu bëggoon dem législatif dem si dem ci hémicycle c'était juste pour peut-être gën a yombal ak gën a ñoŋal suñu taxaw bi ñuy taxawu Sénégal mais yàlla moom mooy namm dara defee ko ni mu ko neexee ak lu mun a am yàlla ni mu bëggee affaire yi te ni mu war a demee rek lay demee donc ñun comme waxoon naa ko la fa passé ma ni nekk député ak ñàkk ko nekk la ñu amale li am solo rek mooy Sénégalais yi xam ne ñun suñu yéene mooy bëggoon nañ dem foofu te li ñu fay yóbbu yëpp li ñu fay def mooy li ñuy def rek wax jafe-jafe Sénégalais yi taxawu leen te duñ fa nekk député kenn dañuy ñaan ñi nga xam yàlla def na ñoom bu leen yàlla dimbalee ba peut-être nekk nañ ci liste yi am nañ accès ba bokk ci parti politique wala fu ñu mën a bokk ñu dugg ci biir hémicycle bi nañ fa nekk waaye waaye te yàlla tax te peuple sénégalais bi tax ñu bañ fa nekk bañ a nekk député yi Macky Sall député yi Khalifa Sall wala député yi jomaay euh, wala Ousmane sonk ñu nekk fa nekk nekk les députés du peuple donc loolu rek déjà bokk na si li nga xam ne ñu bëggoon souligner di remercier ñëpp nag ñi participer ñëpp si kanam <laughs> ñëpp ñu ngi leen di remercier et que ñu comprendre en amul dara loo xamante ni au fait c'est de la politique au fait la politique au sens du mot l'art de bien gérer la cité loolu kese la loolu kese la du leneen bu mu dépassé niveau boobu noonu parce que ñun par exemple li ëpp ci li ñuy xeex diine la ñu xeexal diine di non non ga après bakken day ñëw su bakken ñëwee après yàlla dem bàyyi ñu fa te yàlla ñu ci yàlla musal parce que Serigne Touba dafa wax bu am solo benn maa ko murit ba xabaan dafa ne ma xabantaal mu ne xeex système mooy xeex sa bakken xeex sa bakken nag mënul weesu bëgg-bëgg yi tax nga bëgg en fait lii tax nga bëgg yow ne ku tuukul foog nga fayee ko wala foog nga bokk ci post yi wala foog nga am oto foog nga am 4x4 loolu mooy bakken parce que bakken bi ki ko yor moom fekk yaa ngi dépendre ci nit rek yow doo mën a indépendant loolu bokk na seen i tax yaa a beaucoup de gens qui nous pour ñu ñëw woo ñu pour ñu bokk seen seen liste yi mais ñun fa am ay principe yu ñuy demee sénégalais yi xamuñu principe sénégalais xamul principe Sénégal li mu xam mooy ñoo àndoon di xeex léegi nañ séddoo séddoo jot na da nga war a dugg ci hémicycle da war a dam lii yow da nga sonn da nga war a xeex day jeex mais xeex lan mooy jeexal xeex bis bu ma demee ba gis dugguñ ci gaal gi samay sœur ëmbul ba diis dugg ci gaal gi pour daw di mu lekk sama frère bàyyiwul jabaram dugg ci gaal gi daw di dee ci ndox mi bis bu ma gisee courant courant commencé waat na coupé ñi nga am problème mu ndox encore bis bu ma gisee ni kilo ceeb cent la ko mag Sall bàyyiwul léegi mi ngi cent francs kon xeex bi lu koy jeexal donc en réalité xeex bi mi ngi commencé mi ngi soog a ñun li ñu bëgg mooy il faut ngeen comprendre li tax ñuy leeral ne ñun mënuñoo ñàkk ci société. li ñuy def nii président mënu koo def premier ministre mënu koo def gendarme mënu koo def peuple bi rek moo ko mën def sentinelle activiste yi rek ñoo ko mën a def mooy lan mooy ñoom xam nañ ni actuellement fi adduna bi toll dañu am pression boo xamante ne day jóge ci occidentaux yi vu ni adduna bi di doxee vu euh, ay convention ay yoo xam ne état du Sénégal moo ko ratifié sax ñuy ñëw. ay yoo xamante ils sont obligés d'obéir ñun dañoo gëm beneen Sénégal mën a nekk sans FMI san banque mondiale dañ ko gëm loolu moo tax te loolu fekk ñu ngi gis suñu homme politique yi di am yaakaar ci ay FMI ay banque mondiale ils sont obligés de suivre loo xamante nii loolu ñoom bokkul ak seen i engagement parce que pouvoir bi nekk fii xam la moo leen sonal ñoom seen i engagement moo leen sonal de ñun sonalul leen de ñoom ñoo fi taxaw wax ni parti au pouvoir soxlawul majorité assemblée nationale vidéo yaa ngi fi ñoom ñoo fi taxoon wax ni boo leen te nit bu leen ko may euh, état de grâce muy am 2 mois 2 mois rek doy na vidéo yaa ngi fi de soosu ma ko de kenn du ko weddi ñoom ñoo fi taxoon ne ñoom bu ñu faloo bu ñu defee mois dañuy wàññi denrée alimentaire bi maanaam dund gi day wàññeeku vidéo yaa ngi fi de du ko de ñoom ñoo fi waxoon ne justice sénégales bi ni muy doxee justice ni mu mel mais du dëgg du yoon ndax ni ñu arrêté ñi ci ay délit d'opinion vidéo yaa ngi fi de ay vidéo laa di wax nii de créé ma ci dara li wax nii créé ma ci dara vidéo yaa ngi fi alors maintenant ñun lu ñu bëgg mooy ndax loolu lu mën nekk la parce que gëm nañ ko mais suñ toogee jékki-jékki gis ñu ne arrêté nañ arrêté nañ diw ndax ay délits d'opinion wala dañu woo nit di ko enquête euh, ñu gis procès verbal di ko laaj la moo tax ngay weddi ay chiffres premier ministre non mais attends y problème ci ñoo xam ne dañ leen fekk ci prison bi jëlee leen fa def leen ci palais bi cest à lii moo tax kon xeex bi kañ lay jeex xeex bi mënul jeex tant que mi ngi am tant que justice amul réforme yu normal ñu ngi gis ni Euh, depuis euh, la gendarmerie procureur moo koy jox ordre gendarme bi jug procureur euh, comment dirais-je ministre de la justice moo koy jox ordre mu jug ministre de la justice premier ministre wala président moo koy jox ordre ñu gis ni justice bi moom indépendante parce que loolu la quoi parquet bi am doole boo xam ne boobu léegi ñu ngi koy xeex di ko jooy en réalité on n'a pas ñun on veut changer système la ñu bëgg changer mais mënoo yow mënoo yow fi Macky Sall doon dem ngay dem fi Macky yaakaaroon xaalis nga yaakaar xaalis li Macky Sall sax ngay wax fi ñu taxawoon ngay taxawee ba pare ni ni mu doon def ngay def même justice bi nga nekk di doxee nga ni rupture mais bu fi kenn bu leen fi waxati anti système ça il ñu waxtaan tamit ci dëgg te yàlla rek a tax que ñu sérieux te ñu xam ni ñun suñu ndam mooy ñi nekk ci pouvoir bi réussir mais on les a à l'œil du ñu bàyyi te lépp lu ñu fi waxoon te defuñu ko ñun dañu koy toppaat ne leen ah yéen ko fi waxoon de fàtte xaju fi c'est très simple on n'est pas des ennemis on n'est pas des ennemis. léegi nag dem ci hémicycle bi ak ñàkk fa dem yëpp anyway li am solo rek mooy am naa yaakaar ne am na ñu fay dem peuple bi ñoom ñooy tànn ñu nous soo avec le peuple bi choix bu mu def ñu ngi seen ginnaaw choix bu ngeen def laa bu la neexee ngeen voté am lu neex na voté li solo rek mooy ñun li ñu bëgg mooy éveiller conscience yi rek ñu comprendre carrément ni ah peuple sénégalais bi dañu war a def choix ñi nga xam ñoo am njëriñ ci hémicycle bañ faa nekk bañ a nekk député qui que ce soit nekk député du peuple man benn ma koy daangalee nag benn message bi may wax ak ministre de l'intérieur foofu daal laa koy daaneel ministre de la justice d' abord sax balaa may daaneel foofu sax ma ñëw si projet bi d' abord projet bi ñun projet bi ñun ñëpp ñoo ànd xeex ko gëm ko di xeex pour projet bi yegg ci pouvoir bi pour ñu doxal projet bi projet bi mais projet bi dañ ko yenn woon depuis avant 2019 au fait 2019 élection euh, présidentielle 2019 fekk na ñu ngi xeex ci projet bi quoi yenn projet bi ñoom ñu dem malheureusement ñun ñu gagné ñu ci élection Pastef jotul jàll quoi. parti au pouvoir jotul jàll 2019 vrai ou faux alors 2019 ba 2024 projet bi parewul ok ñu ñëw 2024 jël pouvoir bi jox la projet bi le 7 la ñu wax le 6 le 8 ñu ngi koy dàq rek dem xam fu ñu jëm mais au fait ana projet bi ñun loolu rek mooy suñu man ñu ne bëgg rek su dafa fa réfléchir les mémoires pour gunge leen war leen ñun on est là ànduñoo kenn li ñuy añee kenn joxuñu ko duñu ñu xam ne ñu ngi fi ci ñu nekkoon démb position bi ñu nekkoon démb lañ nekk tey. dañuy ñaan ngir yàlla di ñaan rek yàlla na Diomaye ak Ousmane Sonko réussir premier ministre yàlla na état du Sénégal réussir mais ni ñuy réussir ñun dañu leen teg choc pour ñu ne ñun d'accord ci li ñu waxoon ñi ngi xaar armée française jóge fi wala ñu wax ñu fan lañ ci toll ñu ngi xaar franc fa ñu soppi ko indil ñu suñu monnaie bopp ñu xam am souveraineté monétaire ñoo xam ñoom fan lañ ci toll yooyu yëpp ñu ngi xaar parce que ñoom ñoo ñu ko waxoon